si fii Ndaya tey papa fas yéene ko dégg suñu micro Ndaya ñu ngi lay ziar ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a li nga sañse gis nga ko merci beaucoup ma sañse bi kaw ba njëkkee sa goro sa famille yëpp nga gis leen fii macha allah tabaarkalla lan nga yëg. kontaan rek. macha allah wax kontaan ci bés bi tamit. aussi waaw sa maquillage bu Aïda Mbaye. Aïda. sama bopp bi Mamita coiffure. Mamita macha allah dama dama wax sama cameraman bi jëlal la. gros plan mu wane la ndax da ngaa sañse. aywa merci beaucoup waa Arcos namm nañ la de. aywa bi la boo leen doon Arcos. président lay jëlal rek ci Fall namm naa. solo loolu dama jàppoon ma di ma bëgg a rey ay fecc waa moom lu dul jeex. ma sonn ma daw. suñu nit nga lu yàgg dëgg la kontaan nañ si yow bu baax a baax. gën a kontaan ñaanal jàmm amiin waay yàlla yokk la ci barke Seydina amiin waay amiin waay sama waay la ñu bokk gàggataar muy sama xarit bokk plateau di liggéey te dara musul ñaaw donc bu xewlee damay ñëw damay ñëw waaw am na amul solo waaw waaw parce que la nag de. waaw sénégalais dañoo baax dañoo baax. nga biir nag. waaw loolu de information actualité la. dañoo jóg ko eh, na yegaleeg sa doom rek kontaan naa yàlla na yegaleeg sa doom yeneen émission doom nañu ci barke yonent bi ay doy. dama ciy kontaan yéen da ngeen baax yiw gore su neexee ngeen taxaw. su naqaree ngeen taxaw jàppale sénégalais yi gis nga sans yéen dara du baax gis nga medun mi moo yéen yàlla da koy fay xolam medun leader la nee naa leen nañu jàpp bis woote fii sor anoo sargal si ko jar na koo jar jar na ko te na nekk ci xelu nit ñi te nañ ko def bi ngay am fit di ubbi sa site ta yàlla na nekk télé télé bu mag impro ku ko déggul ci réew mi ah, waaye yow da ngaa tëdd di nelaw waay yaa tee réew mi nii ci sa loxo tubaarkàlla macha allah te yab reewoo fuuyoo doo baadoo la mm. nga takk na xale boo xamante ne dafa am jom am fula am fayda doomu ndey na fi ndooy maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm mm. maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi leen geen sokkoon ne asamaan ak suuf yow sa jabar maa ko bëgg fii maa ngi koy ñaanal yàlla ndax nag dafa ñëw yokku ca rew doole ñeex maanaam Pape Cheikh Diallo bi nga ñëwee tu n'es pas dominé tu as augmenté ah moom ba mu ñëwee dominé wul dama ah, augmenté yàlla na ko yàlla defal jàmm te defal la ko Pendo nag damay kontaan jàmbaar la xarit la doomu ndey la lii mu def nit ku gëm boppam ma koy def jamono fii mu toll kenn ku ne boo làqatu woon yell ci sa yaram ba mu wuyu la nga ne ko fu may jaar mu ne la yoonu soraanoo nga jaar fi mooy li mu def tey tubaarkàlla maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na bis bi sedd yàlla bis bi neex léegi euh, ma bëgg laa laaj macha allah tubarkalla euh, damay wax nag ku waxadi waxadi boo boo boo gisee nen ni de dëgg li macha allah damaa bëgg sama cameraman. déggoo ma sañse bi. waaw mais sa collier. waaw collier bi nga takk. mbaa yëg nga ni isa dama ne ba ma bëgg nga xool ma ma chérie xabi yaa ngi koy yëg gis ka yaa ngi koy yëg xabibi xam nga damaa solo léegi bay génn xabibi mhm. ne ma déedéet xabi dama too ma ne ko bàyyi rek ma daw liggéeyi te ñëw xabibi laa ko tudd fii ku yebee garaaw dafa garaaw <laughs> macha waaw sëy buñ koy takk kenn du ko yëg dëgg la problème ñu génn ci internet dëgg la weerante mhm. mhm. mhm. seen sër di seen mag di seen yaay xam nga man léegi maanaam génne def singal rek laa bañ singal yi lañu jaay seen i jëkkër yàq leen ba ñu yàqu ya xeet nañ bàyyi loolu singal yi xam nga ñu mel ya yàq góor ñi a war a bàyyi ci réew mi ndax dañuy génne ay singal góor ñi nga ni singal ku ko bëgg mu jar waaw yëngal public bi hmm. pour ñu meer yëngu hmm. nga mën a am ay vie hmm. vie virale nag wax dëgg moo ko gën te mu ngi bëgg a yëngal réew ñu ngi yàq dari góor ñi te gis nga góor tubaarkàlla macha allah yàllaa ko jox doole dox ko opportunité fa mu nekkoon ba tey fa la toog kenn mënu ko faa jële ku weddi loolu xoolal ci sa baay dañ naan bu ne góor baax na sa baayee tax man d'accord na ma góor gu bon am na góor gu xolam sedd mu écarté ci jabaram def ak moom ba mu baax waaye bu fekkee dangay def tuuti la tees nga làq ko mm. teg sa jëkkër bët maa nga iñaane ko maa nga soxore ko mm. noonu rek lay demee noonu rek demee mais nga xamante ni euh, góor ñi gis nañ léegi nag ñu ñëw mm. commencé changé ñi takk ay jaaro ñi daal di xees noonu lan nga leen di wax ndax góor ñooñu ñoo fi ne woon démb ba tey xam nga problème mu dëkk bi lan la lépp bëgg ay vie rek ay mbay vie ak tapoté moo toj réew mi <laughs> tapoteel ma ak vie yi toj na réew bi looloo waral coow li lépp <laughs> ku bàyyi woon vie rek am ko te xanaa xamoo vie ba ca yàlla ëpp doole bii bii ñu jàkkaar lool toj na àddina nee leen moo ko yàq nañu bàyyi vie yi wàññi tappate bi ndax loo tappateloo nit rek bu yomal xëyaama yàlla dina la ne ñaata kër la la jox ak ci lan la tax mu jox la kër yi nañu moytu loolu te dem ci pend bi daagul ma xool naa defal loolu tagal foofu sa daagul ma xool daagul wëndeelu daagul wëndeelu ñëw damaa ñëw fii papa fekk sama xarit sama doomu nday ah mu jongo ma ba yàq xaw ma man damaa xaw a saytaane dama xool xale yi jongo ma ba jël leen ci jongo ma ba teg leen fay naa la Mounass Baldé ci loo nekk yaa na. yaay sama doomu nday yow loo nekk yaa ngi ci mooy say tànk cent pour cent parcelle ñooñu invité mooy Awa waa jox ko micro ko koy aw mi ngi noonu merci ma chérie gunge sa xarit maa ngi sama xarit yi allah kontaan naa merci beaucoup vous <laughs> jërëjëf Aïcha mi noonu dañuy ñëw ci la grande dame la femme plus belle du monde samay wax la yaa ngi ci jàmm ziar naa la mais ma armoire mu ma daal di dem dama doon ah. tuuri mbalit da du koon tuuri mbalit waaw dama doon këppi mbalit dëgg la may nga def ngeen def délégation daal di sama xarit la macha allah ñu bokk parcelle muy nekk sama mag yar ma kon tey bu xewle ma awakan kaay jàpp ci dama ciy jàpp wax dëgg yàlla ba tax na tey macha allah cent pour cent parcelle ñëw na waaye samay xarit tamit jógee ba Fass Mbaaw Jacques Mbaaw parcelle fu fu nekk rek ba Rufisque nit jógee fa ñëw ndax Pendo Guissé ndax man mi tamit xam nga man dama xaw a waane jongoma yi laa jël nee nga yéen si jàmm jongoma yi laa jël ma sœur nuyu naa la fay naa la baax yaa si jàmm lan mooy say tànk théâtrale il s'agit bien il s'agit bien bu baax a baax. Moussa Moussa parcelle bi nga bokk mais man muy suñu si sa bokk ñun benn groupe. di dox lu rafet di wax lu rafet ci groupe bi macha allah su ma woowee ni ma oh, màgget euh, dama bëgg nga jógal ma dama koy jógal ba mu neex tamit ñu ngi jógee ba Rufisque macha allah ñëw teewal suñu suñu wal macha allah ñii ñëpp seen délégation la waaw lii yëpp délégation damay wax sama cameraman mu jëlaale ñii ñëpp rek parce que si 100 pour 100 bi la ñu nekk yéen yéen a wax xale yi 100 pour 100

ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. mooy say ci bis bi. tey si bis bi ànd rek awa awa kan moom muy suñu mag bu baax. ñu bokk benn groupe mu baax gën a riis moo euh, pendo bi mu baax nag lool suñu mag macha muy nit ku baax. kontaan nañu bu baax. boo kontaanee kontaan naa ko ànd ak yaa dafay bëgg muy kontaan. waaw kon jeex na kontaan naa. merci ma belle chérie Aïcha n'oublie pas. Cheikh ah. jàppale samay naar yaa samay naar waaw maa ngi lay nuyu eh, maa ngi lay fay eh, eh, sama xarit bi sama xarit dëgg la ñu def ni nii noonu ay xam nga man nee naa la jokk bay laay jël mhm. non def yaa ngi si bëgg nga décorter ma sañseem déjà ñu jël ko kaw ba ci suuf macha allah tubaafakal la nii de laa def li nga sañse na waaw parce que ki may ki dafa man sañse dégg muy awa kan awa kan moo ñu dérangé waxal kan jàllu jéeri kan jàllu jéeri waxal kan jàllu sama waa ji sama doom ji insister kii moom moo tax ñu ñëw dëgg la parce que dafa nekk nit ku baax nit ku bëgg nit parcelle amul xaj ak seen dëgg la ku mu ñëw jàppale la dooleel gis nga ñii ñëpp moom la ñu àndal ñii ñëpp nag macha allah kii te xoolal ñi mu àndal ñi mu àndal ay femmes yu am personnalité yu am dignité ñu jongoma ñu sensa comme moom ñi muy def ñu ngi ci ginnaawam duñu daal duñu daal dootoo ko defati moom it day invité waa kër du yomb chéri kontaan naa waaw bi ma invité yàggul waaw ba toj télé ba barki sëñ Fall kontaan naa chéri ayca sans ñu dem euh, dëkkaat micro yi kanam nee naa la duñu tay euh, duñu sonn waaye tubaarikàlla ah léegi wërëw a dem kër nag jàmbaar ji lee mu dugg si boo ko gëm a gis ndey ak baay man ku ma xam-xam maag gisa maabu sama tooroode bi ay ca damay bàyyi sama cameraman ñu wéyal ma secte bi ba pare macha allah li nga secte bi sa secte pare dama lay bëgg dama daa bëgg ma xam nga moom su ma magee bariwul su ma magee bariwul mais yaay la may wax ndax dama ko bëgg ko ma paa dama tere laa ko bëgg dama koy bëgg ma bëgg rek ma bëgg sa nga bëgg sa jëkkër foog ko sa jëkkër mu ko lool ma jël yéen boo lekk ak samay loxo mooy sama sëy boobu rek laay jox xale yi tax amul benn secret sëy rek fa yàlla tax kumba tëx ruum bañ a déglu kenn bañ a déglu kenn réew mi fa la toll bul déglu bul ko na tàkk ana la yaa defal jàmm sa jëkkër ne waaw wala yaa sa jëkkër amin amin yaa rabbi yàlla merci del déglu del xool